fa inna xayra alkalaami kalaamu llahi taala wa tabaarak wa xayra alhadyi hadyu muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharra alumuuri maxdasaatuha fa inna kulla maxdasatin bid'a wa kulla bid'atin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar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 wa anta raja a nañ ci min naba'il mursalin muy jàngat yi ñuy jàngat ci dund yonent yi alayhimu ba tey noo ngi ci dund yonent yàlla Isa ñu ngi jege woon ci bind bi paase fi isa alayhi salaam di wax ak mbokkam ne leen inni abdullah aataani alkitaab wa jaalani nabiya eh bu ma la fa gisaat jógal foofu wa jaalani mubaarakan aynama kunt wa awsaani bilsalaati walzakaati maa dumtu xayya kon isa indi la waroon leer xamal leen ni yàlla subhaanahu wa taala moom moo ko bind waaye def ko muy jaamam mu nekk ruus bu bàyyikoo ci moom waaye mu nekk koo xam ni yonent la boroomam dénk ko julli barkeelal ko dénk ko mu war a génne azaka waaye mu nekk ku baax jëme ci way juram bii di Maryam kon bindu tey noo ngi ñëw ci faxtalafa al ahzaabu min baynihim ginnaaw ba isa waxe te nekk xale bu ndaw borom bi taala wa ne kuréel yi fa nekkoon dañoo daldi wuute waaye borom bi ne fa waylun lilladina kafaru min mashhadi yawmin azim borom bi nee na torox mbugal ñeel nañu weddi ci bésub boo xam ni bésub seede la waaye nekk bés bu mag bis boobu di bis penc nag bis la boo xam ni ku fa yàlla rëbb ku rëbbuwu nga kon isaa xamle na ni yaay rekk la am waaye amul baay kuréel ya wuute nag yow aadam mun nga yem kuréel ya wuute séddalikoo nañ ci ñetti kuréel ci isaa alayhi salaam am na ñoo xam ni dañoo wax ni anna isa huwa allah benn kuréel bi dañoo wax ni isa moom yàlla la comme nii nga xam ne am na ci suñuy société ñoo xam ne ñeme nañoo fëgg seen dënn ne yàlla lañ hmm. am na ñoo xam ni nee nañu dañuy wird ba nekk yàlla wala ñu wird ba ni ñoom ñooy yàlla fon fële ca wàññi loolu pas-pas la boo xam ni kéefër gënu ko rëy nit ki su ñemee wax ni lépp yàlla la wala mu ne man yàlla la wala mu ne diw yàlla la kon taneetul première kuréel bi wax ni Isaa yàlla la nit ñi tey bëgg lu bon ak mbon yóbbu na leen ci sañ dinaa ci leeral dara xam ngeen ni fan yi yéen a ngi gis ci réseaux sociaux yi Facebook ñu wane fi koo xam ni dafa am doom ay ne doomam yàlla la ko tuddee subhaanaka hada buhtaanun azim muy lu bon lu ñaaw lu xaraam am na ñu ne waa ji Gàmbi la dëkk am na ñu ne Sénégal la dëkk bu mu ci mënti doon jëf ju bon la jëf lan mooy jëf ju bon ku xool Facebook bi di ko gis tey am sa doom imaam ñëw war koo tudd noo koy tuddee nga ne allahu laa ilaha illallah mbokk mi yaa def lu bon yaa def lu ñaaw yaa def lu xeebu yaa def lu xaraam yaa def lu yiis li gën a doy waar mooy bépp imam bu nangoo toog nga ni sa doom yàlla nga koy tuddee imam boobu war nañ koo xoolaat ndax imam ñeme naa tiim xale noddal ko ñu ne ko noo koy tuddee mu ne allah hal taalam lahu samiya ndax xamal nga yàlla turandoo yàlla mi nga xam ni ahadun samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad yàlla amul doom yàlla du am sët lam yakun lahu saahiba yàlla du am soxna tey yow nga ne ab jullit nga bew jàpp la nga def lu firawna ñemewul woon a def billaahi ladi laa ilaha gayru firawna nee na may yàlla waaye newul damay tuddee yàlla doom kon def na lu bon iblis mii sa sëriñ musu koo def musul wax ni man may yàlla musul wax ni day tuddee njabootam yàlla waaye nag li ko indi mooy nit ñi li leen tax sañ mooy yenn kilifa diine yi boo fekkee ñuy suufeel yàlla di tuutil yàlla di tuutil diine yàlla di tuutil kàddug yàlla ay nit ñeme di wax ni seen maam mooy nangam seen maam moo bind nangam ñu ñeme koo wax ma ni loolu ci kilifa yi lañ ko jëlee su kilifa yi doxewul woon noonu kon njaboot gi duñu doxe noonu ndax kii tey jóg ne day tuddee doomam yàlla dafa am lu ñu ko gëmloo lañu ko gëm loolu bon loolu moo tax mu ñeme lu yiis lii waaye def na lu bon attaqué na yàlla guerre attaqué na ku mën a guerre lii bu ko defoon ci dëkk bu àtte islaam bu soobee yàlla dootu ko nettali kon mbokk yi ki def lii na tuub na jéggalu yàlla def na bàkkaar boo xam ni mën na koo alak alak njabootam mën na koo alak alak fameem yàlla kenn du ko tuddee doom loolu reewande dong la loolu ëppal la loolu xamadi la reewande ëppal xamadi soo waxee nag ñu ne diw dafa tàng ni muy waxee dafa tàng waaye jëf ju bon ji ku ko mën a def dara yellul ci yow ñu def la lu bon mbaa ñu wax la lu bon ndax lu ñaaw a ñaaw na def ay mbokkam ya bokk ak moom képp ku fekke ngénte loola toog ca toog nga ci musiba kan la ñuy ngénte yàlla laa ilaha illa ndax tey pàppay waa ji war naa ñeme toog ndax ay mbokkam war nañoo ñemee toog ndax famem war nañoo ñeme toog ndax yaayi doomam war naa ñemee toog kon jabaram dafa jur yàlla laa ilaha illa allah yaayi jabaram maamu yàlla la bàyyi jabaram maamu yàlla la moom pàppaam maamu yàlla la moom yaayam maamu yàlla la subhaanallah bi yéefar yi waxee lii borom bi ne takaadu samaawaat yatafattarna wa tanshaqu al ardu minhu wa taxirru al jibaalu hadda an daaw lirrahmaani walada yàlla dañ koo waxal doom rekk asamaan bëgg a xar suuf bëgg a xar jinne yi mer ne wa annahu taala jaddu rabbina mattaxasa saahibatan wala walada mbokk yi kon borom bi ne kuréel yi nga xam ni wuute nañu ci juddug isaa ñenn ñi dañoo wax ni isaa yàlla la ñaareelu kuréel bi ñoom nee nañu isaa du yàlla waaye doomu yàlla la kilaahuma mur benn ci baaxut ne isaa yàlla la wala doomu yàlla la bu ci nekk musiba la mën naa xar asamaan ñaareelu kuréel bi wax loola ñetteel bi nag ñëw mooy jullit ñi ñoom dañ ne isaa abdullahi wa rasuluh wa nu amati wa kalimatuhu alqaaha ila maryam wa ruuhun minhu ñooñu ñoo wax li neex yàlla mooy ñoom jullit ya am ngëm xam ni am nañu boroom dañoo wax ni isaa day jaamu yàlla la isaa yonent yàlla la isaa doomu maryam la waaye ruux la bu bàyyi ko ci borom bi mu yebal ko jibril indil ko maryam mbokk yi ñi gëm loolu ñooñu day gëm nañu lu baax a baax kon kenn du wax ni Isaa yàlla la kenn du wax ni Isaa doomu yàlla la waaye Isaa jaamu yàlla la ndax loolu la saxal ndax nee na inni abdullah aataani alkitaab wa jaalani nabiya wa jaalani mubaarakan aynama kunt wa awsaani bilsalaati walzakat maa dumtu xaya wa barran bi walidati wa lam yajcal ni jabbaaran shaqiya wassalaamu alayya yowma wulidtu wa yowma amuutu wa yowma ubcasu xayya dalika isa bna maryam qawla alxaqi alladi fiihi yamtaruun maa kaana lillah an yattaxida min waladin subhaana laa ilaha illa allah yàlla ku sell la du am doom waruñu koo tuddee doom du am soxna du am àndandoo amul morom lam yakun lahu kufuwan ahad yàlla du moroomu kenn kon mbokk yi isaa nag bi mu waxee waa baytul maqdis wax ak waa dëkk bi xam ngeen ni nit ku yàlla nara a yónni day nekk ku barkeel isaa nekk xale nag di nàmp commencé toll ci jàngraam toll ci jàng dox commencé nekk xale bu am xel nit ñi commencé seetlu ci moom jikko bu yéeme melokaan bu yéeme te Isaa tollagul ci fukki at day fa ak moroomam di ànd ak ñoom di leen wax lu ñëwagul moroomam yi mu àndal léegi léeg da leen di wax ni lii ngeen denc ci seen kër yi léegi léeg mu ne benn moroomam yow da ngaa denc sa kër ñaari pom bugg koo lekk lu tax nga nëbb ko foofu moroom bi ne ko moom fan la Isaa xamee loolu léeg-léeg mu ne diw seen kër suba lii ngeen di añee te effectivement loolu lay doon léeg-léeg mu ne diw suba lii ngay def commencé jommal moroomam yi muy àndal xarit yi amaguñu fukki at Isaa nekk koo xam ne ku bëgg xam-xam la di ñëw ci bërëb bu ñuy jàngalee di fa jànge waaye léeg-léeg mu déglu li borom xam-xam yi di jàngale mu nekk lu yéeme isaa nag dëkk bi commencé di ko waxtaanee ñu naan doomi Maryam ji xale bi xelam bi ëpp na doomi Maryam bi xale bi day wax lu ñoogul xale bii daal bu raayee koo xam ne dafa feebar mu wér bu raayee ku gumba mu gis day jël ban defar ci picc su ko sànnee picc bi naaw ban bi naaw daal di nekk picc pët pëti dem loolu lépp nag su ko isaa def bi iznillah la koy defee dëkk bi nag commencé yéemu commencé jaaxle maamam Zakariya xam na ni kii am na lu mu nar a doon ndax yonent la doomam i ñu ngi koy waxeeti Yaxya mu ngi fi isaa dem na ba am fanweeri at muy 30 ans Jibril daa koy dikkal ngir xabaar ko ni boroomam daf koo yónni isaa nekk waxambaane mu toyam waxambaane mu toyam mooy ku romb vingt cinq ans jëm ci quarante ans jëmm ju rafet macha allah lépp lu ñuy wër ci xale bu góor nekk ci isaa jigéen ñi bëgg ko góor ñi bëgg ko dëkk bi bëgg ko waaye isaa nekk ku dëddu àdduna nekk ku laxasaayu toppul jigéen xoolul jigéen faalewul jigéen bi Jibril ñëwee nag ne ko sa boroom dalaa tànn yónni la ngir nga dimbale waa yahud yi Muusa ñëwoon na indi tawraat commencé nañ ko sàgganee kon yow Isa mokkalal tawraat nga fàttali ko <coughs> yahud yi sa borom dina la jox beneen téere bu ñuy wax injil moo tax isaa dafa mokkal tawraat injil ñëw nekk téereem pour buy wax ak yahud yi ñu xam ni moom xam na tawraat du ñu ko mën a waxal ci tawraat lu mu xamul ndax lu ñu ciy wax mokkal na ko xam na ko mu boole ko téereem boobu di injil ndax yahud yi bew nañu jéng nañu nekk nañ ñu bëgg alal nekk ñu bëgg jigéen nekk ñu bëgg pal waaye nekk ñu bëgg nguur isa alayhi salaam war a jaamaarloog ñoom isa nekk koo xam ni yàlla jox na ko ci ay keemaan lu yéeme keemaan yooyu bokk na ci yukallimu naas fil mahd wa kahla isa day wax ak nit ñi ci bersoom ba bi muy nekk waxambaane ku juddu rekk wax Isaa moo ko def nga ne loolu benn la ci keemaan yi ko yàlla defal ñaareelu keemaan bi mooy yuallimu alkitaaba wal xikma wa tawraata wal injil yàlla xamal na ko mbind xamal na ko la sagesse xamal na ko tawraat xamal na ko injil beneen bi bokk na ci keemaan yi Isaa am axluqu lakum min at ka hayati tayr fa anfuxu fii fa yakunu tayran bi idnillah bokk na ci keemaan yi isaa am mooy day jël ban suuf bu tooy defar ko ba mu nuroog pison su ko sànnee ci turu yàlla mu daal di nekk picc mbokk yi isaa nag nekk koo xamante ni ñeenteelu keemaanam bokk na ci ubri ul akmaha isaa ku gumba judduwaale mooy ak max bu ñu nee kii ak max la mooy silmaxa boo xam ni dafa juddu indaalewul bët kooku kenn mënu koo faj waaye koo xamante ni dafa dem ba màgg bët yi tuuru wala mu siti wala mu am problème wala dara dal ko silmaxa boobu mën naa wér bu dajeek fajkat bu yàlla nangul kon Isaa léegi lu muy def bokk na ci ku judd nekk ama Isaa bu la raayee da gis wal abros Isaa <coughs> ku ame ngaana wala kuli wala siti isa alayhi salaam su la raayee ngaana gi day wér lépp day dañ waaye bokk na ci juróom benneelu keemaan yi isaa yi def mooy wa uhiyil mawta bi idnillah isa day ñëw ci armeel ñu ne ko diw a tëdd fii mu ne ko diw doomu diw ak diw jógal mu ne faxeet dekki wax isaa loolu yàlla may na ko juróom-ñaareelu keemaan bi mooy unabbiukum bi ma taakuluun wa ma na fi buyutikum ne leen fii ma toog mën naa leen a waxal li ngeen nar a reeree la ngeen denc suba nar koo añee ak la ngeen nara a reere suba xam naa ko danaa leen ko waxal bokk na ci juróom-ñeenteelu kiimaanu isaa wa musaddiqan li ma bay na ya day yadayya mu ne tawraat isaa ne damay dëggal li ma jiitu muy tawraat danaa ko dëggal waaye wali uxilla lakum baadu alladi xurrima leen daganalal la araamoon ci yéen mooy loo xamante ni ay graisse gëléem ak yooyu dañ dir siwaat waaye kat wa jitukum bi ayatin min rabbikum indil naa leen keemaan bu bàyyi ko ci seen borom kon juróom-ñeenti keemaan ngi nii yonent yàlla isaa indaale na ko nekk ndaw am fanweeri at am na nag ci jeunesse bi ñu ko tàmbalee toog di ko déglu gëm ko ba su waxee ñu def su teree ñu bàyyi ñooñu lañuy tuddee alxawaariyuun mooy borom laxasaay yi xawaariyuun ñooy borom laxasaay yi ñooñu nag ñoom la isaa ne woon man ansaari ila allah qaala alxawaariyuuna naxnu ansaarullah ñun ñooy dimbale yàlla mbokk yi lan mooy dimbale yàlla yàlla kenn mënu koo dimbale waaye dimbal bi liñ ci jublu mooy kuy dimbale diine yàlla képp ku taxaw di wax yàlla nee na yonent bi nee na yaa ngi dimbale yàlla képp ku taxaw di jàngale alquraan yaa ngi dimbale yàlla kuy jàngale sunna yaa ngi dimbale yàlla kuy jàngale diine yaa ngi dimbale yàlla moo tax borom bi taala wa tabaarak ne fa lamma ahassa isa minhum alkufra qaala man ansaari ila allah qaala alxawaariyuuna nahnu ansaaru allah aamannaa billahi washhad bi annaa muslimuun rabbanaa aamannaa bimaa anzalta wattaba'naa rasuula faktubnaa ma'a shaahidiin borom bi ne ba Isa demee ba seetlu ci ñoom ak weddi ak ak kéefër nee na Isa ne ana kan moo may dimbale ñu jëm ci yàlla nee na way laxasaay yooyu nekk xawaariyun jóg nañu nag ñoom bëgg a dimbale isaa nekk ay ansaarullah comme ni yonent bi amee waa ansaar ñi ñëw di ko jàppale mbokk yi nag isaa nekk ñoo xaw xam ne nag ku yéeme la commencé naa daawa daawaam commencé naa barkeel dëkk bi ñi fi ëpp ay yahud lañ gëmuñu yàlla gëmuñu Muusa léegi nag coow li mooy ndax léegi dañuy toog seetaan Isaa di woote nit ñi di ko gëm la buur bi commencé mer ak ñi ànd ak moom nit ñi xam nañ ni Isaa alayhi salaam ku yéeme la xawaariyun ak ñu mel ni ñoom léegi ñu bëgg Isaa defal leen keemaan keemaan bi ñu bëgg mu defal leen ko mooy dañoo bëgg benn taabal bu wàccee ca asamaan ñu di ko séen taabal bi def lekk def naan def lépp su ko defee ñoom ñu gën a gëm moom la borom bi naan إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء takunu lana iidan li awalina wa axirina wa aayatan mink warzuqna wa anta xayru raziqin qaala allah inni munazziluha alaykum faman yakfur bacd minkum fa inni ucazibuhu cadaaban laa ucazibuhu ahadan min alaalamin mbokk yi mbir maa ngoog nar a nekk mbir mu doy waar xawaariyun borom bi nee na wax nañu isaa te xawaariyun bul fàtte ñooy ansaarullah léegi ñoom ñoo bëgg lu tax seen ngëm dëgër ñoom ñoo ne Isaa waaw yow yonent nga ndax sa borom mën nañoo wàcceel taabal bu bàyyi ko ci asamaan maida bu ñu ko waxee mooy taabal bu pare lekk nekk ci naan nekk ci lépp nekk ci am na ñu koy firee noonu ne ko ndax sa boroom du la wàcceel ab taabal boo xam ne day def lekk def naan mu wàcc ñu koy xool waxuñu aw nit ñëw <coughs> préparer taabal teg mais nii ñu toogee ñu teen di xool asamaan taabal di wàcc allahu akbar nit a yàgg dëgër bopp allahu akbar di seen taabal wàcc bu wàccee ñu gis ko isaa ne leen ittaqullah in kuntum muminin ne leen bu fekkee ay jullit ngeen yu gëm ragal leen yàlla ci li ngeen di laaj li ngeen di laaj nii lu doy waar la waaye xawaar yu ne yi tontu ko ne ko ñun daal li tax ñu la koy laaj dañoo bëgg bu taabal boobu wàccee ñu lekk ci naan sunu xol dal ñu xam ne li nga ñuy wax dëgg la ñu nekk seede keroog ku nar a weddi ñu ne ko ñun ñoo ko fekkee kon ñoom li ñuy wax garaaw maanaam dañoo bëgg su taabal bi wàccee ñu teg seen bët lekk ci lekk bi naan ci naan ñu ëllëg ku weddi na Isaa def na kemaan boobu ñu ne la dëgg la def na ko ñoo ko fekke ñoo ko fekke loolu lañ bëgg wa nakuna laa mina shahidin nee Isaa lu mu mës a ñaan yàlla yàlla may ko Isaa tàllal loxoom ne allahumma rabbana anzil alayna maidatan min as-sama yàlla noo ngi lay ñaan nga wàcceel ñu am taabal ab taabal bu bàyyikoo ca asamaan bu ko defee mu nekk feet ci ñun ci ñi njëkk ak ñi mujj mu nekk kemaan yow yàlla wërsëgal ñu noo ngi ñaan nga defal ñu wërsëg woowu bëgg nañu ko boroom xam-xam yi nag am nañu ak wuute taabal bi wàcc na walla wàccut am na ñu ne taabal bi jot te ñëw ndax xawaari yu ne yi dañoo tiit dellu ginnaaw am na ñu ne déedéet taabal bi wàcc na ñu koy xool ci biir niir yi muy wàcc ñu koy gis ba mu jege bi mu wàccee jege si nag nee nañu taabal bi mu jul tege waaye teg nañ ci seen bët ñoom ñépp nag gis nañ taabal boobu léegi nag am na ci boroom xam-xam yi ñu ne aw jën wu mag bu ñu méchoui moo ne ci taabal bi am ay raisin am ay meññeent am ay fruits am ay légumes yu ñu defar ba mu baax ngir nit ñi mën a lekk kon loolu yépp ay coow la yoo xamante ni yu bari la yoo xamante ni boo demee ci mu mufassiruuna yi coow li da caa bari waaye ala kulli haal noonee la ko alquran waxe ndax ñenn ñi ne taabal bi ñëwul li leen mujj tiital mooy <coughs> wax bi borom bi wax ne inni munazziluha alaykum fa man yakfur baadu minkum fa inni uazibuhu azaban laa uazibu ahadan min yàlla ne leen dinaa leen wàcceel taabal ji waaye bu xësee ba wàcc képp ku weddi gannaaw ga yàlla nee na dana la mbugal mbugal moo xam ne duma ko mës a mbugal kenn ci mbindeef yi kon nag taabal ji wàcc daa di nekk feet ci yoon ak ñu mel ni ñoom kon loolu yépp lu muy wane li muy wane mooy isaa yàlla jox na ko kemaan isaa yàlla jox na ko kaawteef nit ñi nag bëggu ko am ñu commencé bañ Isa nag bëgg leen a wax ni moom yonent la waaye am na beneen yonent buy ñëw kooku mooy yonent mujjug jamono allahu akbar yonent yi ku mës a ñëw rek wax nga ni am na kuy ñëw sama ginnaaw borom bi ne Isa mi ngi bégal xawaari yuun yi di leen wax ci xaatimul anbiya muhammad ibnu abdullah sallallahu alayhi wa sallam borom bi ne wa id qaala isa bnu maryam yaa bani israil inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadaya min altawrat wa mubashiran bi rasulin yati min bacdi ismuhu ahmad falamma jaahum bilbayinat qaalu hada sixrun mubin borom bi nee na ay waay xool leen rek isa bnu maryam ku baax la woona banu israil ne leen yonent yàlla laa bu yàlla yónni mu jëm ci yéen danaa dëggal tawraat mi nekkoon sama kanam waaye maa ngi leen di bégal di leen xamal ni am na yonent buy ñëw <coughs> sama ginnaaw yonent boobu Ahmad lay tudd ne bi mu indee ay keemaan ñu ne lii da am jabar la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa wax ci xadis bu wér bu imaam ahmad solo cheikh albani wéral ko yonent bi ne ana daawatu abi ibrahim wa bushra isa nee na man may ñaanu ibrahim man may mbégalem isa kon man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeral na ni isa tudd na ko ibrahim lan la waxoon yonent yàlla ibrahim lu tax yonent bi nekk ñaanu ibrahim yonte yàlla ibrahima dafa waxoon ca màkka ne rabbana wabaas fihim rasulan minhum yatlu alayhim wa yuallimuhum alkitaaba walxikma wa yuzakkihim innaka kon loolu mooy ñaanu yonte yàlla ibrahima yonte yàlla ibrahima dafa ñaanoon ne ay yow yàlla na nga yónni fii ci màkka ab yonent bu bokk ci ñoom muy ñëw di jàng say aaya say keemaan di leen jàngal téere bi di leen jàngal bind di leen jàngal xikmate mooy sagesse di leen sellal léegi nag bushra isa mbégalam isa bi mu wax mooy wa mubashiran bi rasulin yaati min baad ismuhu ahmad nee na danaa leen bégal ci yonent buy ñëw sama ginnaaw yonent boobu ahmad lay tudd kon lu ñu mën a jàngatee ci mbir mi mooy isa mu ngi gën a jéggi ay jéego toll na ci fanweeri atam léegi nag ñu ngi nar a jëm ci incha allah darsi bii di ñëw Isa ndax dafa dee wala deewul dañu koo yëkkati wala yëkkati wuñ ko yal yàlla defal ñu jàmm incha allah ba darsi bii di ñëw salaamualeykum wa rahmatullahi wa